takk der yi ñëwee woon a këram wax na ci discours am bi nga xam ne nag mooy déranger moom imaam Aliou Ndao nee na bëri na loo xamante ni tuumal nañ ma ko te amul lenn loo xamante ni dëgg la ca yéen a kaay gi di vox populi bàyyi mbir moomee wax ci coronavirus bi nga xamante ni jamono ci ma ngi jàbaa jónge ci réew mi te week-end bii nga xam ne moom la ñu génn maanaam mbir mi nag dafa jëlaa ñoo ndax lu toll si ñetti junni ci ay cas covid 19 ci week-end bi am na lu toll ci fukk ak yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci week-end bi yéen a kaay gi na ci week-end bi am na lu toll ci fanweer ak benn ci ay cas grave yéen di Sud Quotidien nee na nag Tabaski gii nga xam ne moom la ñu dëgmal soo muy tuule nag caaf xëm lambay ñaaw ci coronavirus bi ndax nag au risque la yéene kaay gi nee na déplacement yi nga xam ne gars yi dañu koy déplacé ci ki gi soo muy tuulee nag kaa yi dina gën a yokk ci réew mi yéene kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa professeur Maïssa Babou deb économiste nee na ak ñetteelu wàkk bi maanaam nag économie bu réewum Sénégal soo muy tuulee di réew mi Quotidien Mame Thierno Dieng mi mooy directeur municipal bu ndakaaru moom nag nee na àndul benn yoon ci li nga xam ne mooy état d'urgence bi maanaam ñu indiwaat état d'urgence bi maam Thierno Dieng mi nga xam ne mooy directeur hôpital principal bu ndakaaru moom àndu ci benn yoon ñu ne ko lu tax mu ne du solution bi ba tey ci biir yéen kaay gi di réew mi quotidien professeur Cheikh Mbacke Lo moom nag daan nay ñi nga xam ne ñooy politiciens yi ak caravane yi nga xam ne ñoo koy def ci tabaski gi yéen kaay gi ba tey wax ne nag am na lenn loo xam ne war nañu ko moytu muy lan muy déplacement yi yéen kaay gi di leen fa njiitu président Macky Sall déclaration bi nga xam ne moom la mujjee def dafa waxoon ne tabaski gi daal maanaam jërul daal ngay déplacé wu dafa mel ni Macky Sall nag ministre yi daal maanaam wu ñu ko ak ñi nga xam ne nag ñooy directeur généraux yi ndax Macky Sall moom nee na bëggul gars yi déplacé wu ba pare nag ministre am yi yi maanaam jël ay bus yu bare bare bare nag daal di def nag li nga xam ne nag mooy ay caravane maanaam la Macky bëgg ak la ministre yi bëgg comme yàlla ak yàlla yi yéen a kaay gi la tribune nee bi moo xam ne dina doy waar ba jégg dayoo journal bi nee na virus bi kay jamono jii nee na mbee virus bi professeur Daouda Ndiaye moom nag nee daal jamono ji mbir mi doy na waar ba jégg dayoo c'est très grave compliqué na yéen kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee ñu xëy fekk fa Mamadou Ndione mi nga xam ne mooy directeur général bu COSEC daan nay wax ci lauréat prix corridor 2021 bi daan wax ne loole nag la nga xamante ni moo ko wundu maanaam mooy encouragement daan nay jaajëfal bu baax a baax njiitul MEDES ne ma président ba ñuy ki nga xam ne moo nekkoon jury day wax ne li nga xam ne nag mooy maritime secteur la boo xam ne liggéey yu bare bari mën na faa soqee ko yéen a kaay gii di la sa nee na tabaski gi jamono ci en tout cas li am ci diiwaanu Thiès foofe nag maanaam xar cher na fol loola gën ngaa gàtt di am lu toll ci quatre-vingt mille xar mi gën a ndaw quatre-vingt mille francs yéen a kaay gii di xëy wax ci président communauté rurale bu Touba jamono ci gars yi ñoo ngi laam-laame na maître ma Niang la ñu ko a jox mu nekk maire bu Touba wuutu fa a kaay gii